ah lépp lépp dañuy sant yàlla lépp moom bu ñu demee ba xam euh, caxat yàlla ak moom la nee naa la yére bu baax bu mu njëkk ba ni ma bëgg ma moom moo ko jox jox ma ay bag kon dañ koy ñaanal ndam naa ko ndam mi ñun duñ ko ñaanal Eumeu Sène parce que après Eumeu Sène day jeex waaye ndamu Pikine la loo xam ne ay lay ati ati at kon moom moom moom def na lu mu war a def yëpp kon lii rek moo ñu deseel bis ah, bi façon bis bu nekk indil nañu ko kon bii ma bii moo ko deseel dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu boroom defal ndam di ko ñaanal na ko suñu borom fay xolam lépp coono bu mu amoon si làmb parce que man ah, mun naa la xale la waaye man lu mu da coono bu mu am man xam naa ko fekkee naa ko kon xam naa coono lu mu doon ut bu lu yàgg yàgg ba bëri xewlee bëri dafa xewi moom moo xewal bëri kon dañ koy ñaanal coono yooyu mu doon daj daj daj daj yàlla na ko yàlla fay la 28 du ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam waaw du ko ñaanal ndam sedd guy guy guy non ca non non xam na caxat bi xam na bu ñu ko mun na mun na mun na indi kii bi mun na indi kii bi dañ ciy def code mu doon surprise bu daanu ba pare toog après après ko ci xam bu boobaa neen ñëw ma tekk leen mais ëma bu waxee rek waxal na ñun ñëpp yaa ngi dégg moom suñu mag la suñu lépp la te xam nga képp ku ci nekk mbër ci ñun rek bu ko teewalee tey rek dañ koy fay bor bi rek moom moo gën a baax foofu suñu bés yi moo doon taxaw xam nga te ci jàpp di sonn si ñun bu baax a baax moo tax dañ ko delloo monnaie bi rek yaa ngi dégg di ko ñaanal nag ndam parce que bis bi du bisam comme lu ko Ama waxee bis yëpp la ngi dégg combat royal du combat am moom rek waaw moom moo nekk ci géew mais ñun ñooy bëre bëre bi yëpp yaa ngi dégg ci zaar ak ci baatin dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax adversaire bi moom xam na lool sax ñu duñu bàyyi dara lépp la ñuy jàpp allah dañ bu baax loolu moom ñu wax ko ak ñu bañ ko wax ci zaar ak ci baatin dañ ciy jàpp bu baax ñu ko parce que lenn mais dañ ko jàpp suñu grand la bare dañuy wax ak yéene daal dañu yëpp ñuy def yéene la dañ koy yéene ndam daal ndam boo xamante ni ndam bu koy jiglay doon ndam bu set wecc